waaw ah, kay bonsoir amis téléspectateurs bonsoir à tout le monde bonsoir à toutes et à tous à tout un chacun où que vous soyez qui que vous soyez ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di leen gërëm ci ànd bu rafet bi ngeen di wéy di ànd ak programme mu 2STV euh, c'est parti pour Arru Mbed bon Karbala a été invité dans cette émission mais je l'ai pas encore eu je l'appelle il est sur boîte vocale donc Karbala il a été annoncé sur les réseaux qu'il sera notre invité C'était lui en tout cas qui devait gagner beaucoup plus de visibilité par rapport à son événement qu'il organise. J'ai même oublié la date. Alors je vous ai demandé tout à l'heure d'écrire euh, vos réactions sur Facebook. Je vous ai simplement demandé d'aller sur la page Facebook de Haroumbed et de revenir nous dire ce que vous êtes en train de voir. À l'instant sur la 2 de l'écran, en de l'écran. Si vous êtes en train de nous regarder sur la première aurez du Sénégal, sachez que les vidéos que vous allez nous demander, nous allons nous y baser pour vous les faire passer. Alors, l'actualité oblige, on va vous parler de ça. On a énormément de commentaires, Pour euh, minutes, On a énormément de commentaires, depuis la publication. Mais rassurez-vous, vous aurez bien entendu l'arrivée de mon ami One. Pas two, pas three, pas Non, one. Just one lyrical. Il sera là avec des innovations qui font que sa puisse décoller très rapidement aux yeux des Sénégalais. Il a toujours été dans cette dynamique, de toute façon, il est poli, il est correct, je ne sais pas pourquoi. Quand j'entends Wanderikal clasher, je me dis, mais am na lu manqué quoi. Il y a quelque chose qui manque. Rassurez-vous, chers amis téléspectateurs, le festival Guédiawaye Baye Rap a été déclenché hier au camp pénal am naa camp pénal lu ma fa jëlee dinaa leen ko wax ci kanam tuuti comme ça ñi nga xam ne bëgg nañ ñu jàppale ñu ci nuñ ci mën a jàppale dafa am fa jëlee euh, principal Ami Guèye bi nga xam ne moom mooy assistante sociale bu camp pénal am na lu ma dénk dinaa leen ko wax juste après mais toujours parlons de camp pénal l'artiste Ngaaka Blindé avait été arrêté pendant un an pour faux billets parce que dafa doon defar clip le procès a duré quand même hein? ça a duré beaucoup de gens sont pensés pour dire ouais booy ay trafiquants lañ dañuy def nangam ak nangam ñu ñu àtte ko yàggul dara ñu bëri naan damay jooy man du jooy man gangster laa am OG man musuma jooy man <laughs> bon c'est pas ça l'histoire l'histoire c'est quoi c'est que le 27 la ñu waroon a joxe verdict bi tey le 27 juge bi nee na Ngaaka tout bonnement simplement purement relaxé sans condition parce que li ñu ko doon toppee defu ci dara waxoon naa leen bu ñu ko àttee ko parce que booy bi deful dara alors l'information c'est ça donc nous allons regarder un Ngaaka Blindé pour le plaisir de tous ces sénégalais yi nga xam ne dañ ko doon déglu te nekk ay ndaw jàppe woon Ngaaka Blindé référence te déggoon ko ci wax joo xam ne ñaaw na bu fekkoon moo ko def mën na yàq deram yàq deru hip hop bi yépp jàpp leen ne ña doon enquête ak ña topp wër nañu ba gis ne papier A4 yooyu ñu doon wax en réalité foofu lañ photocopier woon pour clip la woon il a été relaxé tout bonnement purement et simplement mais cat ba cat nice on se tape en gaka blindé au plaisir des téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal avant l'arrivée de One Lyrical nous allons aussi vous parler de l'affaire de la prison continuez à nous écrire vos dédicaces on va pouvoir les lire sur la page Aroumbed et sur ma page personnelle ou celle de la page ou celle de la 2STV sur la page 2STV ou sur Twitter hashtag Aroumbel vous êtes toujours les bienvenus on se tape Ngaaka on se retrouve juste après. Euh, je m'apprêtais à lire quelques commentaires. Ah Binta merci beaucoup à Dembaka merci beaucoup à Ousseynou Ousmane Seyni euh, Philippe. Euh, merci beaucoup à Lisa Faye, à Abba Diop, Fatima Chillo, euh, Seydi, Moussa Mbaye. Merci beaucoup à Geiki Chiko, Mbaye Ndiaye, Petit Ibou Kamara. Merci beaucoup à Mamadou Ousmane Boch, Bomba Senghor, Awanjom, Petit Gassama, Babacar Ekonyan, euh, Vihim Vr. Yo boy, c'est tourbillard là. Il faut respecter les gens quoi. Est-ce que tu penses que l'imam il vient il dit xale bi tuddee nan ko Vihim eh? C'est pas possible. Il faut respecter les gens. El Moustinio Diallo merci beaucoup à Moussa et eh, Moussa Mbaye ngay commentaire bëri na du ma la gisaatee du ma la lire. Kan Cheikh <laughs> général DM et le show c' est quoi. booy seen tur yi Facebook yi la ñu modifié pour seen concert wala booy rappeurs yi nga xam ne dañ naan ah 100 likes je publie le son 8 mois du am 100 likes. loolu aussi bu leen publier son parce que yéen a waxoon ah 100 likes xanaa xanaa Bas Dieng merci beaucoup à l' baiser bon. Les commentaires, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en prison. je regarde la caméra là-bas, comme ça, ça va faire plus institutionnel. dañu dem camp pénal bu Dakar mooy ñi nga xam ne atte nañ leen ba xam peine bi ñuy tëdd foofu la ñu nekk te foofu du waa Dakar ñoo fa nekk foofu am na ay quelques Dakar mais am na ñu dëkk Kédougou am na ñu dëkk Wuduru am na ñu dëkk. Euh, Tamba am nañu dëkk Ziguinchor y' a beaucoup de Sénégalais qui son là-bas au camp parce que defe naa moom mooy seul camp pénal bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu am fii nii ci euh, bu ñu àttee nit ba pare mu war a tëdd longue détention foofu lañ koy yóbbu alors qu'est-ce qui se passe moom mooy ñooñu dañuy dem ba à un moment donné seen mbokk yi leur famille dañ leen di fàtte dañuy am ay problèmes primaires ay problèmes mu saabu bu ñu sangoo ay problèmes mu pâte dentifrice ak brosse. ay problème mu dàll yu sol ay problème mu yére alors quand on était en concert là-bas par le biais de Fou Malade et de euh, euh, ñu ngi fàttali ne tey dañuy def concert ba le 29 incha allah Guédiawaye Baye Rap et ce sera en direct la 2STV ce soir le concert va commencer demain aussi day am concert après mais bi ñu demee démb 26 bi doon def concert bi foofu ci camp madame euh, la principale Amine Ndiaye assistante sociale di m'a dit Pape dama bëgg bu ngeen génnee ngeen jàppale lan ngeen bëgg lan mooy seen ay soxla fii mu ne ñun dañuy soxla saabu ñun dañuy soxla euh, daal ñu dañuy soxla yére ñun dañuy soxla euh, pâte dentifrice ak ay brosse loolu la parce que ñii dañu dem ba amatuñu mbokk kenn dootu leen toppatoo. na ko waa ah, d'accord su ma génnee je vais demander au hip hop comme ñoo fi ñëw pour concert je vais demander au hip hop ñu def seen kéemtalaay kattan. ñu xool naka la ñuy jàppale bon en général nag genre di lu mel nii bu amee gars yi ci profité pour laaj xaalis nit ñi moi j'ai pas de numéro de téléphone à pour ne waa ku ma bëgg a yónnee xaalis yónnee ma ko fii ñi nga xam ne bëgg nañ ciy def dara dama leen di ñaan bu fekkee am nañu vingt mille wala trente mille wala dix mille bu ñu am ñu jënde ko dal wala ñu jënde ko saabu wala ñu jënde ko ay pâtes dentifrice ñu dajale ko le 5 janvier samedi lay tombé le 5 janvier on amène les caméras de la 2S ñu dem ne leen lii yenn follower hip hop bi wala ay quelques sénégalais ñoo dajale seen ay koom-koom ñu may leen ko parce que j'ai vu que ñoom ina ñu ngi doon def pour jigéen ñi foofu nekk ci camp pénal bi foofu a côté ñoom problème ay serviette hygiénique la ñu am mais maa ngi gis jigéen ñi ci hip hop bi ñu ngi ciy góorgóorlu mais ñun aussi am na ay góor yàlla yu nekk foofu noonu yoo xam ne juum nañ mais ci réew mi lañ bokk te dañuy bëggee hip hop dañuy bëgg hip hop bi donc nañ leen jàppale comme ñun ñoo leen fay fekk di leen conseillé suñu amee ay soxla wax nuñu ko nañ leen ci jàppale lu ñu mën fii ba le 5 lu waaye am bu mu dekk yëkkati xaalis di ko joxe en fait na dem jënd ko ay dàll 42 ba 45 whatever parce que pointure yëpp a ngi fa dajale ay yére boo amul dara sax mun nga génne ñaari yére yoo solatul ñu dajale ko yóbbul leen ko en attendant les événements kaso Sénégal métti na trop et j'en ai des frissons hier j'étais parti pour leur faire plaisir pour ñu dund une soirée exceptionnelle du 25 décembre mais c'était plein il y avait beaucoup d'émotions et encore une à l'association J Hip Hop Guédiawaye Hip Hop pour ces nobles initiatives nous aussi on va apporter après bon les on on se voit sur Facebook sur lu ci waay mun mu jàpp si le 5 ñu dajaloo def benn gan dem yóbbul leen ko mu leer nañ lii ñu dajale du xaalis bu nit di pasar pasare wala bu nit di sàcc yaa ngi naw aca on regarde la vidéo de Fou Malade et de Fada Freddy Kasso et juste après vous aurez One Lyrique vous êtes toujours sur la 2STV vous avez fait le commentaire commentaire One Lyrique kaay téléspectateurs, vous êtes toujours en train de regarder la première chaîne de télévision privée du Sénégal vous êtes dans Arru Mbed et ça fait plaisir maa ngi def lu nekk pour ñu wane sama dàll yi mais kenn faale wu ko wàcceel sa loolu yow ngay keng keng noonu bañ ko wàccee nga xool man ku la faale wàcceel waaw waaw bul wàccee de man maa moom sam bopp waaw wàccee leen seen lii ngeen may dangal ni du leen faale war na yàlla merci donc je le disais tout à l'heure nous allons recevoir aujourd'hui One Lyrical One applaudissez One Lyrical s'il vous plaît je suis le seul à t'applaudir ah <laughs> a pas autre chose nous allons regarder sa vidéo mais avant on va lui dire bonjour One nag tey da ngay parce que suñu taxawee ñëpp dañuy gis ne dama gàtt tout le monde va voir que je suis petit Pape Samba bul ma jël noonu comme ça may ndaw noonu zoom ma sax au moins respecte moi. waaw <laughs> tamit mais One Lyrical maa ngi lay ziar. ziar Pape Seye ba yaa ngi si jàmm. maa naka activité yi. sant yàlla mais One Lyrical nga de. waaw mais graaw sama nature la bokk. sa nature weex si la bokk. waaw xanaa da ngaa am <laughs> diw <laughs> doo diw mais da ngay diw. non xaw ma de. ah. du ma diw mais damay diw ça dépend si concept bi rek. concept lan la concept. on va y revenir tout à l'heure On oh, regarde une vidéo de One Lyrical pour mieux vous le présenter pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Il s'appelle One Lyrical et il est talentueux. Regarde sa vidéo, on se retrouve juste après. damay diw kay. Allahu akbar. ay waay dëkk bi changé na léegi. say diw sax da nga koy wax télé yow. non man waxuma dara baal ma jege sa ma jaxase ak gars yi. <laughs> mu ne day diw. eh yow kii li mu war a kër ngeen may seetaan nii si télé bi. way <laughs> sama ne yooyu foofa toj na da ngeen may sacrifié ok c' est pas grave non c' est pas grave mm. amul benn problème merci Wan Lyrical gars nous sommes avec toi et euh, pour te présenter pour te présenter à nos téléspectateurs tu dirais quoi yow kan mooy Wan Lyrical waaw Wan Lyrical mooy Wan Lyrical aka Boy Dip xam nga di booy ginnaaw raay booy Pikine donc artiste rappeur bon je pense que ñu ñi ñi nekk ci mouvement hip hop bi xam nañ ma peut-être bu fekkee amul ñu ma xamul tamit gars yi ñu may commencé ràññee nank nank quoi à travers yenn activités yi may def que ce soit mu nekk samay vidéo sur Instagram wala son yi may génne. Mhm. One Lyrical tu as commencé à faire le rap depuis combien de temps. 2013 laa commencé def rap. ah c'est pas longtemps tu as fait cinq ans. bientôt six ans. Flo moo ma moo ma inspiré si Flo Hop. waaw donc tu as entendu la compétition et toi tu xam nga Woz. waaw Woz ñoo doon ñoo doon footballandoo. Woz moom moo daan yóbbu concert. du coup man melomaan laa woon dama doon déglu mais daanu ma woon dem concert donc Woz moo ma doon yóbbu Flow Up mooy bi ñoom man ji bokk affaire yooyu après foofu la sama affaire yi intéressé. waaw waxaale ma fay lii. <laughs> kenn déggul si studio bi dara. ngeen ñu bëgg a rey ken ken ken ken ken ken ken ngeen foog na man faala daale. yéen bafoo sax <laughs> fala ma affaire yi. c'est après à partir de Buzz que tu as tu voilà voilà parce que moom au début dama ko waxoon man damay def DJ DJ laa bëgg a def mu ne ma man xaw ma kuy joxe ay cours non graffiti mu ne ma xaw ma kuy joxe ay cours graphe. ma ne ko kon damay def DJ mu ne ma euh, waa agriculture ñooy def DJ mais chaque six mois la. ma ne ko léegi damay rap mu ne ma yow da nga yabaa rek <laughs> ma ne xamul loo bëgg quoi après. <laughs> saa da nga jógee grave. voilà <laughs> dem si bëgg a nekk rappeur. waaw mais tu es a un rappeur. waaw comment ça se fait comment on devient un rappeur. yàgg rek nga xëy ne da ngay rap. bon juste da ngay am gis nit boo nekkee ci dara nga bëgg ko def au départ da ngay am amour bi après amour boobu noonu day transformé wu nekk passion comprendre genre. samay début lool la woon quoi juste benn feeling moom ma si dugaloon mais après laa si dugg di def ay son nit yi di ko apprécier xam nga après laay ak ay nit di job ak ay nit affaire gën a sérieux quoi donc 2000 2016 mën naa ne laa ko laa ko def affaire boo xam ne job laa ko jëlee quoi. Mhm. muy bi ma jëlee concours flow 2016 donc voilà affaire yi commencé dëggu ci man ma bàyyi lépp nekk si quoi. Mhm. macha allah et euh, tu as commencé à écrire des textes dem studio def ay maquettes. Mhm. wala yéen seen génération da ngeen ñëw rek génne mixtape. non mais da ngay bind mënoo xëy xëy xëy rek génne mixtape mënoo jékki-jékki rek ne da ngay génne mixtape te gars xam xamuñu la. mais balaa ngay bind dina o loo prouvé toppandoo au moins. non man nag mosuma toppandoo kenn bien vrai que ne am naa ay ñoo xam ne dama leen doon déglu dama leen doon kiifee. kan comme par exemple man ñi dof moo nekkoon sama rappeur. ñi dof man dof waaw bu bëggee rap moom moo moom moo tax. ñi dof dof waaw dof bi waaw. <laughs> genre moom laa doon déglu di ko déglu après man ay wóos moo ma xamal ay pëpës ay yeneen gars après ay ay ay bug xam naa leen quoi seen kumpa genre après Wose moo doon ñëw bu ñu dajee terrain entraînement mu ne ma man ñii laay déglu ma ne ko man ñii laay après fa la bi ñëwee daal. ngeen di seetaan ku nekk li muy déglu. voilà parti. c' est ça je rappelle que yow yaa ngi dëkk Pikine. Mm-hmm. raay. si boobu noonu c' est c' est réputé dans le hip hop. Mm-hmm. man ñi ma fa jot a comprendre commencé mooy. Mm-hmm. Euh, de la coalition ñoomu mbaam. ah Tigrim bi Tigrim bi aussi ils étaient de de dans le cadre général ah Pikine. Pikine na bëri na moom bëri na Pikine waa Pikine aussi dañu xaw a taayal tuuti Pikine suñu amee tali bu bees nii au ñu utal tur bi koñ bi tur eh. ko benn paa bu def affaire bu extraordinaire Pikine dañuy tuddee koñ bi Pikine tali bu bees waaw mais loolu la parce que dañu reconnaissant rek <laughs> loolu loolu taayal la rek ah, mais du taayal <laughs> de dañoo <laughs> bu bees baali am tali bu mag ñu tuddee tali bu mag waaye li ngay def boo sañoon nekk non loolu laay mbalagee sama copain yi ma yi ma yi ma xam yi dëkk Pikine yëpp ma leen yéen seen waa koñ tayal ngeen booy bu ngeen jël benn paa sax <laughs> ngeen tuddee ko koñ bi mais ay Pikine tali bu bees tali bu mag après tali bu sew xam naa amagul mais bientôt tali jàllo am na tali jàllo caaro yi la nekkee ah caaro yi waaw aussi waa caaro yi dañ leen di copier xam naa certainement <laughs> mais nous allons y revenir One mm-hmm. Lyrical ta carrière a été marquée par une mm-hmm. Euh, collaboration wala une production par le Reptile Musique et par la suite nga génn Reptile Musique am benn différent bu ngeen am et tu as réglé ça pas par la par les points mais tu as réglé ça par le son. Mm -hmm. euh, et puis c'est que te le c'est ce que le hip-hop te donne. Mm -hmm. comme droit boo mën a exploiter. Mm-hmm. après longue année de collaboration tu a senti que tu étais lésé gars yi dañu relayé au second plan. Mm-hmm. pourquoi da nga dara wala da ah, dafa dañ la a aay wala non non c'est quoi pourquoi tu as été relayé au second plan ba nga mer. parce que mer moo la génnee foofu. meruma aussi da nga meroon. yow xam nga. li nga may nii yow xam nga réponse bi. ah dama lay laajaat ndax da nga aayam aayam moom loolu nekkul débat quoi. rek. <laughs> non mais juste ay passage la ay ay affaires yoo xam ne da nga ciy jaar xam nga góor mën nga jaar ci ay ay affaires yoo xam ne da lay marqué ci sa life xam nga mën nga déggoo ak ñii doo déggoo ak ñële donc après dañ ko fay bàyyi dem xooli leneen noonu la fa demee. mais am dara après ah, par la ah. suite. mais aw ma problème ak kenn honnêtement. honnêtement. Eh, honnêtement. waxoo ci kenn wax ju ñaaw. suma toog wax ci kenn wax bu ñaaw que ce soit mu nekk maag samay xarit que ce soit mu toog ak ay nit man ay nit sax boo ñëwee toog di ma wax waxu boo wax keneen du la tontu quoi genre mun nga wax fi ba suba damay damay noppi parce que voilà xam naa sama bopp du ma tooñ bëgguma ko ma tooñ du coup jaam laa yéene ñëpp li ma yéene sama bopp laa yéene ñëpp damay déglu ñëpp comprendre nga lu nit génne déglu fu ma fekk fa laa koy dégloo bu ma fekkee si oto fa laa koy dégloo bu ma dem ci sama coin di laaxatu pour seetaan nit wala may déglu nit quoi non non meluma noonu. tu es tu es entier dans ce dans ce que tu fais parce que un jour dañ doon wax ma ne la non dama am benn plateau bu ma doon organisé. <laughs> bu sax dugg si la mais bu ma la woon invité parce que dama doon bañ. après yéen ñaar ngeen am problème. et tu <laughs> m'envoies un message. pour me dire que non man aw ma problème yooyu. mais est-ce que tu peux dire ça à la télé est-ce que réellement est-ce que ba waxuma dara ci li xew. <laughs> mais est-ce que yow. da nga am problème personnellement ak les artistes de Reptile Musique da nga leen bañ wala da nga leen xeet wala clash bi dafa mit hmm. dafa mujj délégué sa ay fans ñu nekk en guerre contre les fans de Reptile Musique. nu mu fa demee noonu. genre man gisal sama jëmm ji rek mais nitu kase laa quoi amu benn problème peut-être am na ñu may jugé. Eh, si samay son nitu kase nga plus weex. waaw bi moom garaawul sama nature. Ah, il faut dire ça nangu naa <laughs> j'assume <laughs> euh, samay son am na ñu may jugé ci samay son. genre peut-être son yi dafa xaat ni may waxee dafa metti parce que kenn ku nekk am nga benn benn benn benn énergie bu négative man énergie bi nekk bi nga xam ne dafa négative si man dama koy génne way ko samay son comprendre nga ça ne veut mm. pas dire que ne dama réew wala dama xamadi wala dañ ma yar fi ma war a yaree quoi comprendre nga mais juste que ne damay def li ma fii laay def du ma tricher quoi du ma ne dama bëgg bëggal ñii baal ma def lii wala baal ma censurer nii ni muy ñëwee ci man noonu laa koy génnee. Mm-hmm. bien vrai que ne léegi maa ngi commencé changé maa ngi am ay affaires yoo xam ne maa ngi koy censuré donc man nekkuma ci ay affaire de pique ay affaire de clash xam nga lu ma waroon wax wax naa ko pare naa si. donc du ma du ma toog di justifier wu à chaque fois di toog naan non. lii la après may bàyyi nit yi dama leen di bàyyil bénéfice du doute ñuy wax. problème bu nouvelle génération bi naa la ko wax tey. <laughs> problème de pic la. <laughs> mais yéen pic yooyu mënu leen ko jël ngeen gasal ñu suñu tali nga xam ne dafa yàqu. man peel <laughs> ñu ne man pic lañ ma lancé man dañ ma la. nit yéen fan la ñuy xamee boo yeree seetu mais pic mais boo yoree seetu lu nit wax nga gis ci sa bopp da ngay doon nitu problème parce que da nga naan après yow ñëpp dañ la bañ wala da nga naan nit ku def son wax rek yow la waxal te fekk demeewul noonu bon man honnêtement man samay son man lu ma neex laay wax mais waxuma ak kenn <laughs> comprendre nga. di nga wax ak kenn. des ah, fois nga ren benn baar boo xam ne. da leer ne lii. Euh, non wala. Euh, Dominique Ndiago moo ko moom. <laughs> non bàyyi non Dominique Ndiago turu la ah. bàyyi bàyyi li nga <laughs> man du ma du ma pic man su ma demee bay wax ak yow damay wax ak yow nga xam Fall Ndiaga yow laay wax. Euh. comprendre yow doo da ngay du ma picc damay peel waaw. genre damay wax mu leer quoi nga xam ne kii yow lay waxal <laughs> waaw mais du ma ma du ay picc des fois nag mën nga wax dara mu tombeel loo xam ne nit waxoon na ko par exemple tey am na ay booy yu jël sama benn son sama photo photo eh, Elzo Jamdong maa ngi doon wax ak moom téléphone sànq suba rek maa ngi koy big up au passage. Ah, ñu ne dañuy clashante maa ngi moom te fekk clashante wuñ. moom sax wax na ma loolu quoi ma ne ko bon fii moom gars yi ñi lañ mel xam nga soi-disant ñiy wax ne ñoom ñooy jëmale rab kanam. ñoom ñoo jël ay di jaxase ay nit. dugg ci YouTube bi non booy nekk ci YouTube. dañu bëgg ay ay kii lañu bugg rek. nu mu tuddati ils veulent ça fait partie du jeu aussi. waaw man man dam ragaluma coow. il faut que les gens les les cliquent. waaw yow ragaluloo coow. ragaluma mais bëgguloo mu ne mooy nekkul sa. option mais du ma tooñ voilà option première d'accord nga génn. après nga commencé marquer sa empreinte ñu bëri door la commencé bàyyi xel parce que quand tu étais dans le Répril il y avait beaucoup plus de choses qui éblouissaient nos yeux hmm. on te voyait pas mais tu avais un talent brut hmm. yow ak euh, Isha Boy Heykel. Mhm. Heykel amul xaalis mais foo ko gis da ngay foog ne dafa am xaalis. kaana la daa yor xaalis. yoru xeer waaw <laughs> li ngay wax. <laughs> yoru xeer Heykel <laughs> Heykel yoru xeer. waaw li ngay def kaana la kaana la bi yàlla daje mu ama. loolu yëpp ma jënd si cent mille la man dama am xaalis. kaana la ma ne yoroo juróomi dërëm nga ama lan yow ngay dem di yenu saako fële bu gars yi tëddee marché Gueule Tapée. mais pour revenir par rapport à. parce mhm. que problème là dans le hip hop. Mhm. et après. on ne peut pas parler de problème toujours de problème est-ce qu'on peut parler de perspective parce que après da nga génn nga bokk ci artistes yu raar yi Keizit signé Keizit moom taf nañu artiste Sénégal yëpp seen mur <laughs> jox leen ay kayit ne leen signé leen <laughs> mais ñenn rek léegi naa lañ tànn ñoo xam ne dañ mais ñeen dañ leen signé distribution mm-hmm. ma ni moom balaa ngay distribuer nit xëy na nit ki produire loo koy distribuer mm-hmm. mais fii gars yi dañuy dem testage instrumental Damso wala mm-hmm. wala Modou Ndiaye Dame Sow xaw ma fan lay liggéey mais dégg naa dafa war a ñëw Sénégal sax. Mhm. mais bon je à partir de là on a vu une collaboration wala euh, un, une signature avec Keizit. Mhm. mais bon sang mais qu'est-ce qui se passe. Ah, lui... mais yéen artistes Keizit yëpp ba ngeen duggee Keizit ñun dañoo mel dañ leen a ñàkk. avant ngeen di nekk Keizit yéen a ngi dox. non mais ngeen mais man maa ngi ah. non mais man maa ngi dox genre peut-être suivre ma. non dama lay suivre. on se voit dans les concerts. mais je veux dire que tu as. genre bu may wax suivre uh-huh. des spectacles. des des des des des organisations des productions. man je sais que toi dans ton self-made. Uh-huh. tu es en train de faire des choses pour alimenter. tes réseaux pour tes followers. Mm -hmm. je sais je suis au courant. il faut que je vois pour pour savoir. Mm -hmm. mais <laughs> artistiquement parlant. yéen dañ leen war a produire dañ leen war a distribuer. man dama bëgg tey Kézit yóbbu la France nga def tournée. mais loolu day ñëw yóbbu eh! la mais xaaral xam nga nit. nit koo xam ne. gëm nga ko yow. ah xaaral ma wax la leen man déjà sama euh, IP bi ma mujjee génn booy différent. Mhm. du ko hésite moo ko produit. déedéet comprendre nga donc mënuñu jël ay son yoo xam ne nii nekkul ñoom ñoo def production bi ñoom à la base dañu bëggoon jënd sama IP mais loolu daloon ralentir après sama joobu album. parce que après day jël temps bu ñu ko jëndee dinañ defaraat ay affaire xam nga defar defar fii ay concert yóbbu def ay promotion de gauche a droite te arrangé ko ma quoi donc man maa ngi évoluer maa ngi def ay son chaque jour maa ngi defay ay son bëgguma jël ay son denc ko après ma xëy un bon jour ne dama koy génne à chaque fois damay bëgg jox gars lu bees loo xam ne ni day tàng quoi day jógee ci fóot bi tàng bon Kayz it ñu ngi job ak ñoom wan wax dëgg yàlla gis naa fa sama bopp quoi. Hmm. wax dëgg yàlla naa fa sama bopp que jox nañ jox nañ ma àq xaw ma keneen man lu ma gis laay wax quoi donc ñoom dañuy yëkkati seen xaalis seen ay millions la ñuy yëkkati dañ koy def ci artistes yi muy seen production muy studio yi ñuy enregistré muy seen émission yi ñuy dem ak lépp concert tout affaire yi nag dafa jotagul te lépp loo gis boo jëlee sa investissement par exemple yow boo jëloon sa xaalis nga dugal ko ci dara doo ko përëx përëxee après perte comprends nga da ngay xool occasion yu baax yëpp da ngay jéem dugg fi wut ay collabo def mais man en général les artistes qui sont à euh, Kézid quand tu leur demandes ils te disent wow mais comment bon, ils vont ils investir des millions sur toi man xaw ma mais parce que ñoom ñooy def production yow déjà son yi ngay def man saa yu ma defee benn son par exemple benn son mën naa ci def deux sessions studio wala trois sessions studio benn session bu ne cent euros la imaginel ma génne. xanaa session yi defee ko Sénégal. non laa koy defee. cent cent euros benn session bu ne benn son. mën naa si def flow ten taw nga def session bu dama lay wax maanaam cent euros yi man artiste bi lañ koy fay. Ah! comprends nga lay wax. genre benn son mën naa si def cinq sessions man am naa si son boobu noonu cinq cent euros. comprendre nga. yow booy tourné vidéo waaye du ngeen ma siyee. non déglul booy tourné vidéo ma jëlal leen benn son def <laughs> sa vidéo dañ lay fay. dee ñoom kay dañ lay fay donc ñoom ñooy produit say concert xam nga ñooy. ñooy produire say tournée sa cachet yow artiste yow lii laa fay ñu fay la buñ buñ pertee ñoom la buñ pertul ñoom la. <coughs> mais en tout cas man xam naa lan moom ma boole ak ñoom xam naa lan mooy samay engagement xam naa lan mooy samay ah, avantage donc. voilà quoi le reste mooy après projet bi génn gars yi dinañ gisal seen bopp waaw. d'accord léegi kon si je maa ngi xaar ba artist bu nekk ti Keizit ñëw ne ma Pape Sidi def dara jàppale ma ci promotion bi yow Omzo daal maa ngi lay xaar yow préparé na préparé album da nga def session na lekk xaalis après yéen bu ngeen amoon xaalis ñu jàppalante bu ngeen amee xaalis di ñu ko na di ko copp si. yow ñaata yoon laal la invité concert. un. deux fois. deux fois. xam da ngay fàtte. deux fois yëpp li nga ma laaj laa la jox. waxaale wuñ wax nga dëgg wax nga dëgg moom da ngay fay moom boo ko rappeurs xam ne dañuy nekk dañ may yóbbu njaareem ba pare duñ ma fay <laughs> fayaguñ ma de <laughs> waa espérance maa ngi leen di nuyu waale waay hmm. njaareem ba nag na moom waaye ba tey duñ ma ne xaar nan naa xaar nan ma wari mais wareegun ma <laughs> alors euh, nous arrivons maintenant au terme de cette émission balaa ñuy gën a jeexal mais personnellement est-ce que toi tu es en train de créer maa ngi si parce que que toi tu viens de loin voilà tar na trop fi mu jógee metti na peut-être gàtt na mais tar na peut-être nit yi dañ lay gis nii rek nga xëy un bon jour ñu ne ah dafa am chance wala dañoo liggéey ñun dañoo nekk si suuf di xuus di ko ñaakanteeg suñu morom ba yàlla def tey ñu yegg fi ñu yegg donte amaguñu liñ bëgg carrément mais voilà mu ngi si yoon bi quoi donc teg naa sama sama def naa sama studio récemment yàggul dara. Mm-hmm. <coughs> donc instant bi mu loolu moom moo jëkkoon nekk sama looloo nekkoon sama rêve bi nga xam ne moom laa. njëkkoon a am ci hip hop. teg nga réalisé wu na waaw am naa sama studio bu dóob donc amatuma ay problème mu son quoi. loolu est-ce que am na preuve. ba parce que mën nga teg mën nga studio boo xam ne ordinateur la. d'abord studio ah. ah man ndax am nga. moi je suis très de ah, c'est une bonne idée ça. def musique foo ko yóbbu Pikine. non muy Kër Massar. bu ko yóbbu ko Pikine. <laughs> non mais voilà sama kër papa la yor kaayam. donc ah sa kër papa yow yaa newu fa quoi waaw. foofu da ngay jege jéggi raay trop. waaw ba pare après aussi sax li ngay dem di louer di fay te nga am ko sa voilà nga am ko foo xam ne nii yow bu yaa géral sa bopp courant xam ay affaire de location fekku la si c'est plus facile ngay def loo xam ne nii après day metti quoi ci yow. en tout cas c'est bien. jaajëf. mais est-ce que les les rappeurs yi sont au courant que am nga studio yow. <laughs> waaw am na rappeurs yu ñëw di job ba ba doo ko tuddee mu nekk studio rek nga ne label laa am. non man xam nga dëgëruma fit genre <laughs> fit quoi. si page bi studio de production musicale lañ ci bind genre binduma label waxuma ay waxu label xam nga door donte am na ay artistes yoo xam ne bëgg naa job ak ñoom. maa ngi seen i contact donc ay boo yoo xam ne fil naa leen. da nga leen bëgg a produire. du production sax parce que man woo naa leen ba ñu ñëw toog ma ne leen fii amul xaalis bu ñu produire man su ma amoon xaalis bu muy produire kenn dama koy def si man sama musique gën a avancé comprendre du ma toog nag ne dama ñaax wala dara ñaaxuma comprendre mais bëgg naa ay boo yoo xam ne dama leen gis seen talent neex ma bëgg jàpp si seen si seen. seen carrière xam après suba nag luy xew ñoom la bu ñuy xooli feneen ñoom la dama leen wax affaire brute quoi ma ne leen man lii la fil naa li ngeen di def donc bëgg naa booster seen affaire yi ngeen def li ciy xew après nag seentuma si moo niñ seetuma si dara mais juste benn feeling la comprendre noonu la demee quoi mu ngi nice

nous allons regarder ta vidéo après bu ñu ñëwee nga wax ma xalaat ci li nga xam moo di actualité euh, ci euh, hip hop bi. on va parler de l'affaire Ngaka une minute on va parler de ce que j'ai dit tout à l'heure pour la prison après nga jël ma comme 500 euros session yi nga xool lañ ci am pour jëndee ko ay daal wala ay. 100 euros session. 500 <laughs> euros. par par session. Kézit man moom ngeen maa signé de. ay waay cosaan. no cosaan pour ñu signé ma quoi. Moussa muy ne yow kees yi nga ne. chargé de com bi mooy noonu. déggul wolof nag dégg na bon <laughs> yow dugal ma signé. toi tu ne parles pas wolof. d'accord. on regarde une vidéo de Watt Lyrical et on se retrouve juste là. Moussa si kii na de man gisuma woon lii. maa ngi mel ne lion in the zion kay. <laughs> oui j'arrive sama tante dafa am whatsapp tata chaque seconde kenn du yónnee message whatsapp allo Pape allo yaa ngi may dégg maa lay dégg waxal ah <laughs> c'est dama lay bloqué de barki yàlla dama lay sama tata dafa am whatsapp mhm. chaque seconde dama ñëw allo Pape yaa ngi may <laughs> waaw man tata maa ngi lay dégg kay. mu demaat yoonam ba heure bu ko ne xam ne toog xarita bi wax Pape mm. Allo yaa ngi may dégg loolu moo ko si neex. nous sommes de retour mais li yàgg na de vidéo bi ñu seetaat bi. <coughs> na de. torop 2016 la <laughs> am na yeneen yu gën a bees yu gën a nice yu gën a yu gën a fresh et puis euh, ton album tu l'as fini wala c'est toujours en cours de préparation. album bi pare na bu yàgg c'était début c'était prévu ñu génne ku si 2018 bi mais ki doon job son yi moo amoon benn accident si loxo presque trois mois. nekku si donc loolu moo xa xaw a ralentir lu bëri te génne ko si jamono ji nii instant bi ni nii nii day xaw a compliqué ak élection yi ñëw donc lu baax quoi. ñu bàyyi ba mars. wala waaw waaw genre avril quoi. waaw bon mën na sax bañ a yegg avril juste après élection yi rek. mars kon parce que le 24 février la ñuy élection. waaw su deuxième tour dañuy demaat ba mars ah bu amee deuxième tour rek ñu def suñu premier tour génne suñu projet. non mais kooku bàyyee noonu bi di xaar kay ba mu yegg si noonu. il faut il faut garder le suspense jusqu'à ce que. l'opportunité ah, se présente man am na ay yu ma waxaloon. Mhm. yu ma waxoon ne ma 2017 billahi waat ci yàlla ne du ñu génn 2017 avant seen album di génn. Mhm. xam nga de 2018. Mhm. ñaata jours ci des 3. waaw yàggatul moom. xam nga te 2017 lañ waxoon ah. xam nga danger la à chaque fois parce que man jàng naa si ko danger la ngay annoncé te lépp pareewul. parce que on ne sait jamais imprévu day am quoi mën nga prévoir dara nga xëy suba leneen am donc da ngay obligé nga repousser affaire yi ça ne veut pas dire que ne gars yi dañ ragal génne wala dafa am lu ñu sóor wala dara mais c'est juste que affaire yi dafa parewul te dañ bëgg lu nice xam bëgg a indi leneen quoi ci bépp coté donc loolu la na gars yi patienté rek affaire bu ñëwee moom duñ ko réccu quoi. catangi ci ci accident de la route alors nous parler brièvement de Ngaaka Blindé aujourd'hui mm. a acquitté libéré tout bonnement et purement et simplement parce que lii mu doon def du mm. dara lu délit bu mineur ndax xamut woon ne ay mm. phobie la en tant que rappeur tu as tu as tu as tu as l'information ça t'a fait quoi waaw metti comme comme ñëpp parce que gars yi xamoon nañ depuis le début que ne deful dara quoi juste ay billets la jël dem tourner vidéo ñun man def naa ko personnellement peut-être yàlla daf ma rëccale ba ma rëcc peut-être ndax nattu moom la dal parce que kenn ku si nekk si ñun bëggul dem prison xam nañ lan moo nekk prison quoi xam nañ boo fa demee da ngay wàññeeku comprendre nga donc du affaire boo xam ne daf ko mérité ton nañ ko te deful dara donc li moom sant yàlla rek la quoi bu si jógee day gën a xam ba nit la doon xam nga gën a xam fan lay teg tànkam après loolu kese la quoi. léegi loolu prison li nag. ah. prison mooy gars yi nga xam ne dañu leen war a yóbbu janvier. le cinq janvier je viens de voir que c'est un samedi. Mhm. donc je voudrais que gars yi dajale yow lan ngay jël engagement joxe waa en tant que One Lyrical label de def musique production. <laughs> kenn ku ne jox loo mën rek lu waay am lu waay am lu waay mën. wan. <laughs> waaw. ñaata daal la. par exemple ñaata daal wala ñaata non pas ay dàll yu graw yu extraordinaire mën na nekk ay dàll yu jar ay taw five wala genre dàll yooyu wala dàll yu jar non man en fait xam nga ça ne boo bëggee def dara nga toog si ay télé di ko wax. Hmm. képp ku nekk prison mook ñi nekk ci mbedd bi ñoo yem maanaam caabi yooy wute rek comprendre nga kii fanaan ci mbedd bi sedd bi di ko jàpp ak yooyu ñooñu ñëpp soxla nañ ay yére soxla nañ ay daal comme ki mm-hmm. nekk prison donc pour man booy def dara soxlawul ngay ngay ngay ngay xaar mi wax la ko wala nga. waaw mais doo yow doo ko wax xool Dudu <laughs> man Dudu balaa maa dee mu ne day rab ak tigtigam yi mu mel ne apprenti car ni. Dudu moo daaka rab rapport yi nag. ah am na rapport yi Dudu daaka rab. Ah. non loolu daf ma yéem sax finalement quand j'ai écouté le rap de Doudou là yeah. mais bon on va dire euh, que c'est terminé que c'est fini et cette émission nous avons présenté cette émission avec plaisir avec beaucoup de décompressation yeah. c'est comme d'habitude dans Arru Mbed hein euh, c'est comme ça que ça se passe rendez-vous très prochainement gars yi nga xam ne dañu bëgg a xam fan le studio bi nekk mën nañ le contacter soit sur Facebook mm. sur Twitter sur Instagram tu es partout sur les réseaux et je te conseille et t'exige à y être davantage. Mhm. parce que loolu rek nga mën a def pour euh, gars yi mën a am accès si yow ku dikk Kër Massar ci boru station bi bu laajtee waa studio One Lyrical gars yi war nañ ko ko mën a wan wal fat fat beneen bi mooy on attend euh, l'album avec plaisir on va voir ce que Kayzit ak yow lu ngeen job on attend aussi beaucoup de beaucoup d'événements si si fan ngay jouer si décembre bi. ji papa hmm. ngay jouer. bon dégg bu ma no amee kon dina ñëw. am na xaalis amul comme trois dates la. <laughs> yéen a bëri nag da ngeen bëgg xaalis nag loolu moom dafa maa métti yow. merci beaucoup amis téléspectateurs ce fut un agréable plaisir pour nous de vous avoir présenté cette émission comme je vous l'avais annoncé euh, à l'entame de cette émission dañu waroon a dalal. Karbala mais bon depuis que je me suis réveillé je l'appelle il est sur boîte vocale xëy na dafa bëggul ñëw mais bon c'est pas grave allez lui dire bon il a été attendu mais il est pas venu c'est pas grave lu ci mënti am c'est pas grave. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de la 2STV, INA et l'ensemble de la team euh, de Tafaseo et des Soman qui sont de l'autre côté, Petidia, Décor, Mbagnick. Merci beaucoup à euh, Bachili et à mon ami Momo Borom Diourbel. Mention spéciale à l'ensemble des éclairagistes. Et eh Bedi, Ziarnal. Wow, one love à tout le monde. C'était Arumbed, Omar Diabel Diop et de l'autre côté de la régie, il y a énormément de personnes. Bachili et consorts. Mounma Lim Nyep, Damay te ku fàtte ñu dóor la fii ci 2STV maa ngi añ damaa xiif